alaaji ñu dem. ñu dem roxee bu élément baaxee ñu dem. baax na. dañoo wax ne sëriñ Fallu moom Seexu Xadim moo ko tuddee Touba Salim ñi ñooy wax Touba Saalum waaye sëñ Fallu moo ko tuddee Touba saalim hmm. Salim na mooy firi jàmm ak mucc rek waaw. waaw hmm. ah, sant yàlla waaye euh, ni mel moom daanaka daj na réew mi waaye nag loolu toujours damay wax ne duñ ko jiiñ yàlla nañ ko jiiñ suñ bopp ndax. suñu boom day wax ne saa su ma defalee nit ñi xéewal ñu jàpp ñu jàpp ne xéewal gi ñoo ko may seen bopp ba mu jural leen ak mbewte la may leen joxoon ma téye ko loolu nag bu baax day daal di jur fitna ci nit ñi fitna ji mooy da ngay da ngay da ngay da dara di ci séntu dara yàlla xañ la loola loolu mooy inna allaha la yughayyiru ma bi xaw qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim saa bu nu defalee xéwal nu xam ne xéwal ga ci yàlla la jógee lam ñu ca sant ñu def ko xéwal ga day dolli ko waaye du wàññi ko mm, waaw population am na dëkk dëkk bi nag dëkk bu ndaw ndax dëkk boo xam ne booy xayma kër yi da ngay ko xayma ci daanaka téeméeri kër ak yu topp te kër gu lu néew néew man nga ne daanaka néew na kër yu fukki nit yeewewut kon dëkk bi du dëkk bu ndaw dëkk bu mag la waaw xam naa daal wax dëgg yàlla mbooloo ngi fi daal Mm-hmm. waaw nag eh, am na yu fi am waaye am na yu yu yu amagut. tontu ñu ngi koy bëgg. école bi am na fi ñuy jàngale faranko la ñuy jàngale xam-xamu diine di jàngale it nasaraan lépp na ci yittee sëñ bi ak ci taxawaayam. Mm-hmm. yi fi amul nag bari na ndax eh, hôpital boobu nga tudd amu fi. ak mboolem yu yi ñu mën a yu bari ci yi ñu mënta ñàkk nga xam ne dañ koy jéggaani te soxla ko ci biir dëkk bi sëñ maa ngi koy bëgg waaye yàlla dogal na jàpp negut waaw mi ngi koy bëgg nag waaw ndax day wax ne bu soñoon lépp lu am tuubaa rek ci wàllu jumtuwaay boo xam ne daana noppal nit ki ci ak dundam te gën koo jàpp na ak jaamu yàlla am dana ko indi ci dëkk bi waaye nag loolu moom ci fi fi ñu toll nii moom wax dëgg amu ko fi moom waaw waaw euh, dëkk bi de bu dee Saalum Saalum yi ngay xam yow ma xam ko néew nañ fi lool euh, ñi fi ëpp daal daanaka mën nañu ay ay diggante euh, bawal ak njaamur ak ay xeet yooyu la waaye bu dee Saalum gii nu xam ci biir Saalum moom wax yàlla am na fi waaye bëriwu fi waaw waaw bëriwu fi waaw. waaw bi de message yu mel ni dénk rek mooy niñ niñ mel niñ nekkee ànd ak yar ak teggin boole suñu bopp ñu doon benn di liggéey pour lu ñoŋal dëkk bi. ndax dañ ne euh, li jaamu yàlla maanaam defar sa réew ci jaamu yàlla la bokk léegi nag li ma leen di dénk mooy nañ fexe gën a góorgóorlu gën a fonkaat dëkk bi xam ne dëkk bi kenn du ñu ko defal ñu ñoo ko war a mën a defal suñu bopp naam nag am na ay bonne volonté yoo xam ne ñu ngi ñuy jàpp waaye ñooñu itam ay jeunesse su dëkk bi lañ woon. Touba Saloum nag xam nga man sama papa ko amoon ouverture la taalibe Cheikhou Tidiane la woon. dëkkoon diggante Sañaan mbël bul ak buleel parce que fii yëpp ñuy dëkk la boo fi dëkk bu la neexee bu subaa nga dëkk fa ci des parce que bépp sa dëkku maam la yàlla dogal nag moom euh, comme baykat bu mag la woon euh, Sëriñ Basiru Mbàkke radiyallahu anhu sañ ci dëkk boobu di Touba Saloum tubaab yi ñëw fa daane garab yi def fa ay parcelles yu nga xam ne un kilomètre lay guddee yaatoo euh, demi kilomètre mu nekkoon béykat bu mag mu sama papa daan am ay nagi saret tubaab bi wóolu woon ko ci mbay mi mu bokkoon sax ci ñu ko doon jàngale jamono Sénégal loolu moo ñu moo ko yóbbu Touba Saloum mais biñ fay dem sax fekk man juddu naa mais xale yu bëri fa la juddoo waaye ku mel ni man ak Baye euh, Baye si lay fekk nañ ñu juddu ñu nekk fa nag muy dëkk bu nga xam ne gannaaw bi nga xamee ne Serigne Bassirou moo ko sañcoon nekk fa ba mu fa jógee bàyyi fa suñu benn wayjur bu baax ñu wax bàyyi ma dikk gajaga moo fa nekkoon ak son papa ak mag yi dëkk ba yépp dëkk bi réyoon yaatu lool ëppoon ñaar téeméeri bunt kër kër gu nekk ay baykat yu mag fa dëkkoon ak jaamukatu yàlla bi yàlla sama borom dogalee nag ñu dem ba Euh, génn di dem jàngi dellu siwaat bi ñu génnaatee nag bi ñu ñëwee ñu daal di euh, sanc fi Kaffrine mais terewut ñu bàyyi ko xel parce que kër ga fa nekk euh, fexe nañ ba garder ko jël nit teg ko fa bu ndikki ba pare ñuy bay ñuy bay donc dëkk nag su fekkee ne ba nga fay dem amoon lu mat at wala juróom-benni at nekk fa ba màgg fubalee fa nawetaan bëree ndoor fa xale yi foye fa def fa lépp day des sa xol bi loolu mooy suma digganteeg Touba Saloum voilà de retour Touba Saloum. merci trop merci reportage bi neex na trop merci merci ah. macha allah merci beaucoup très euh, mu ngi noonu mu nekkoon euh, dëkk fête yoo xam ne amal nañ ko Touba Saloum mu nekkoon deuxième élément bi nga xamante ni euh, amal nañ ko Pape comme li may wax di di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni amaana jàpp nañ ci ci reportage ba mu ba mu ba mu yemb du fàtte ki nga xamante ni Pape moo ñu yombalal suñu dem foofee xam ni mooy Touba Saloum ci dëkk bi muy El As Ndaw Ndukumaan mm-hmm. moom jàpp na ci baax a baax ci ci dem suñu dem foofu noonu fexe na ci loxoom la jaar ak ñeneen ñi nga xamante ni amaana ña nga fa euh, ñoom ñëpp ñi nga xamante ni sëñ bi ñu ngi koy nuyu pap mhm. sëñ Gadiaga ma nga fa donc di di di ko di ko nuyu baax a baax di ko siyaar di gërëm ñëpp ñi nga xamante amaan ñoo yeewoo Touba Saloum pap comme la mooy wax laay waxat rek euh, Touba Saloum daal wax pap jàpp jigéen ñi laay wax ñeneen jàpp di formation déjà am na ñu fa ñëwoon jël seen i kayit yóbbu ba léegi déggatuñ leen ñooñ mm-hmm. ñooñ defoon loolu ci Touba Saloum jigéen ñee nañ ngeen ñëwaat ngeen jàppal leen ndax bëgg nañ liggéey mais gisuñ liggéey à part xëy dem tool ya euh, lu may ñu dàqanteeg marché bi loolu tamit moom am na ba en moment donné booy boo fooy toll da ngay bëgg toog sa dëkk liggéey ko sa dëkk mënoo chaque jour nga jël saret daw cinq six kilomètres dem ci luuma bi ci mag munu ko boo utaloo loo xam xamante ni dama doon jàpp ci biir këram amaana aussi mooy gën jeunes yi aussi la même chose tamit ñu ñu jàppaleen ci matériel pap hmm. jeunes yi matériel lañ ma wax ñoom matériel yoo xam ne dañ mën a liggéey ci dëkk bi yooyu tamit lañ ma lañ lañ ma jooytu donc loolu daal en grosso modo moo doon li nga xam ne def nañ ko Touba Saloum mu nekkoon ñaari partie yoo xam ne def nañ ko bii bële lundi passé ñu ngi woon si première partie bi lënd bi ñuy def deuxième partie bi teg ko donc di ñaanal ñëpp jàmm sutura ak xéewal pap di leen jox di daje beneen yoon ci beneen gox gu fasantikoo ci daaru Sénégal jërë nga jëf Pape ba lundi incha allah rabbi